ah baal leen ma de. waaw ah, maa ngi gërëm ñëpp di ziar ñëpp incha allah <laughs> on va se retrouver demain. incha allah comme ni ko. eh Aldo wax tey anniversaire am. Oui. ah oui eh, eh. Alburax teel anniversaire am souhaité mu baax mi ah, doomam leen ah, ah, ko <laughs> <laughs> joyeux koy souhaité happy birthday. anniversaire kii temps pas may présenté benn émission. waaw. waaw ah. joyeux anniversaire alburax ah, joyeux anniversaire alburax bés bu dellu si moo si moo neex gin gin gin si moo waay loogu eh, mais Alburax Linguère ah. la dëkk te <laughs> eh, Pape Ousmane Linguère amul amul ngoyaan wala. non ngoyaan moom bàyyi koog Saalum bàyyi koog Saalum waaw. Linguère. Hmm? la euh, moo fa am. Euh, Linguère nag. Euh, le grand reporter des grands événements. fan wér. yàlla jàppale la. amiin leeral sa yoon. wax dëgg yàlla jàmbaar dëgg la quoi parce que moom man bi ma ñëwee ci kër gi ba léegi wax dëgg yàlla. du ñu woon lu dul. talent am quoi et puis non non saay-saay la nag non non saay-saay la saay-saay la saay-saay la lool lool mën naa la ko nag mais bu ma dagg bu ma dagg ma sama sëriñ bi sëriñ la nag waaw non bu la téyelee reportage da nga borom baax. Ah. non borom baax la ah. sérieusement borom baax la. et que mën a mën a yaatal très ouvert macha allah. mën a <laughs> xëy parfum yu neex. yii a lem ma dig daf ma dig parfum nag. mami daf maa dig parfum nag. ba tey gisaguma parfum bi maa ngi koy xaar. un jour ngoone Saliou ma ne ko xam nga lu ma gën a neex ci yow munuma mën a ko say tëstal. waaw day set wecc nag ah jabar ji mu def eh, ci ay carax yu jabar ji jabar ji moo koy def boo koy wookee mu yegg si yéen kay xaar la rek jabar ji jabar ji jabar ji moo koy defal ndeysaan wallaay wallaay bu def sa tànkam wëral euh, euh, Ami Aïdara depuis Côte d'Ivoire mi ngi euh. nuyu tonton Ayib Daffé tonton Ayib Daffé man Ami ah waaw mi ngi koy nuyu nee na ñu nuyu ko bu baax nuyul ko ko nekk ko Ami Aïdara mu ngi wallaay wallaay ay <laughs> tonton Ayib ayib nag war naa sant yàlla de jamono ji daaw ndeysaan mi ngi doon daw DG bi ñëw taxaw téye classeur bi ànd ak huissier bi yenn saa nga nekk oh. sëñ tey sama <laughs> kenn du yow tuwaarkal non ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la vraiment. no albax la la yéen joxe ma sama saa tuwaar kàlla tuwaar kàlla tuwaar kàlla ah. tooga tooga tooga sama rakk ji buraax sama rakk ji xaaral jënd gâteau waaw waaw loolu yow baax waaw doon na joxalal ma ko foofu waay. Eh. bëree bëri. wallaay ndeysaan la sa eh? xol. wallaay mi ju bëree bëri. daanaan la nag wallaay. alburaax yow léegi continué. fari baal baal baal fari baal. ah eh, déet déet fari. ñëwal nii alaaji nga jox ñu ñaari baat. wax na noo dundee sa anniversaire bi. ak kan ngay ndeyale anniversaire bi ak koo koy ah, bàyyi ma wuy ma ngir yàlla ak yonent bi ay ndeyale moom dimbali ñu ci rek ngir yàlla. Hmm? waaw Paa Ousmane waaw. <laughs> waaye ñoo ko bokk. maa ngi leen di bégee bu baax waaye. Ah, ñu ngi kontaan naa de wax dëgg ah, yàlla maa ngi toogoon di nelaw ci ginnaaw. ah Babacar moo ma yee na ma nit ñi yow la ñuy jëw <laughs> <laughs> nit ñi may jëw ci man. wallaay lu baax la mais bég naa lool. macha allah yal ko ànd di fete yu bëri mami may ma yeggali waaw waaw yal nañ ànd di ko fete Euh, at yu bëree bari j'aurais aimé nag mu fekk fi Nabou Cor tey. Euh, mu ngi maa ngi koy ñaanal bu baax moom itam. di ñaanal internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Sans Limites TV. ndax tey bu ñu demee ba nekk première. c'est grace à eux. Mm-hmm. leen di jaajëfal bu baax. di leen ñaanal itam équipe bi nga xam ne. saa yu ñu xëyee ñooy bégal réew mi. waaw bëri na ci ñoo xam ne nii. seetaanatuñ benn télé. Euh, ñu fenn ñu doon copier itam bàyyi nañ. voilà loolu faw itam ñu koy wax. ñu doon copier li nga mujjee nii dama bëgg nga parce que dafa fekkoon ah. may kii sama nopp bi. Hmm. waaw dama la bëgg ci loolu li nga mujjee ah. ngi gërëm bu baax équipe bi nga xam ne saa yu ñu xëyee. Hmm. ñoom ñooy jox sénégalais li gën. Hmm. bi mooy dose matinale bi gën. voilà ñu doon copier ñu bari bàyyi nañ ña demoon dikk nañu. ñu demoon ñëpp <laughs> dikk nañu. waatu wasaat nañu ñëpp yàlla loolu loolu c'est bien. waaw ñu doon waaj a dem it. ñu doon waaj a dem itam toog nañu. ñu daan dem fu ne itam. ah mami dem na fu ne. léegi toog na. ku <laughs> nekk dem na fa mujj naa toog bàyyi seen. Ah, barki dem la fi jaar ak veste bi di ma nuyu faale ma ko. naan dina ñëw foofu daa wéet foofu daa wéet ah. RTS daa wéet. li mu am fi mu ko am foofu xamu yi ambiance la xam. RTS ay tubaab fa nekk li Ngoné waxoon. Ah. am na yoo xam ne xamuñu ko. Mm, mm, mm. ay seen fii lay nekk naan sërëb rek yi ngeen xamul yooyu ñooñu ay tubaab lañu. dëgg la xamuñu sërëb xamuñu loolu. xamuñu loolu. loolu Ousmane naroon naa dem Dubaay mais toog na moom itam. kontaan nañu bu baax amoo ah, yee nag doon da ngaa taxaw sama sama wet quoi. mbay <laughs> la bi nag. Eh. dafa am ñaari marraine. ak benn parrain. waaw ah. Ah, bi. bés du tuut borom lay tollool. Euh, du tuut borom lay tollool. dëgg la ni ma toll. Mm. noonu la sama bés bi toll gisoo tey dafa xëy. waaw ah, maanaam bu ngeen génnee bu ngeen génnee da di xam ne climat bi c'est bien. dëgg may fàttali jour bi Alaaji Abdou demee rek. wallaay ndeysaan voilà Serigne Fari. wallaay loolu la may fàttali. wallaay voilà voilà loolu la may fàttali tey. wallaay ma jël bés bés bi nag tuddee ko. Mm. kenn ki di taalibi Serigne Saliou. Mhm. kenn ki di taalibi sañ Babacar Sy. macha allah kon xam nañ seen bopp. tubaarkàll ah. tubaarkàll. wala ma yeggali tubaarkàll ma yeggali wala. déedéet déedéet déedéet. <laughs> déedéet ah, benn bi. am na mu déggul. benn bi. Hmm. mooy Ngone Saliou Diop. jóobu mhm. jibbu saa xewer fat mi ci juróomi li ngeen. Ah, ay si te Fatma Kodo ah déet boo xam ne dama yëngu nag. taalibi Serigne Saliou bi moom laa ko tuddee. beneen bi di mami Samb <laughs> Samb fari mi ci ndeel yi dem Kumba ak Waali eh? hmm. taaliba Sëriñ Babacar Si hmm. moom boo bëggee mu bëgg rek la Sëriñ Babacar Si dëgg waaye boo bëggee laal xolam itam jox ma sa Si ah, <laughs> moom la yaakaar moom la doyloo hmm. waaye nag parrain bi parrain bi parrain bi sëriñam moo ne ci ginnaaw fii. waaw. sëriñam moo ma jox mbaxana bu rafet bii sëñ eh, mhm. waaw l'unificateur. Mhm. modérateur. tubaarkalla. nga xam ne boole dara ki wax. Hmm. Eh. ki nuru bàyyi ki doonu bàyyi. Mhm. ci xam-xam bi ci yar bi ci am taalibe. waaye ci mën a boole ay bokk. macha allah Pape Ousmane Cissé. waaw Cissé Ngari Madabel Diakha Cissé Madabel Birane Ndatek Boubou. waaw waaw na yàlla sàmm la aar. man bég naa lool de Fary. macha allah kontaan naa kontaan naa trop. maa la gën a kontaan Momo. amal jàmm ju naa lool waaye. mën naa dem ma émission bi dama mami ba léegi wéegu ma. ah ma ma wéef kër yàlla. ñaata ma koy wéef léegi ma joxal la ko. foofu. non da nga koy maxit. Ah, naa waay da nga koy maxit. mais kontaan naa ci waa Sans Limites bi de depuis démb ak léegi maa ngi gis message yi. ak wax ma ca Maroc. Euh, euh, euh, Bachir Babacar Tete. Assane. May. kii nu mu tudd Penda. aljuma merci. dama ko dama ko neexoon orange moo ne comme ah. orange la àndal. waaye ah. bu fekkee ne amoo. orange moo ne am nga maxit. orange moo ah. nag ñëw nañ fi war a ñëwee moom ah. moo ah. làmb sa xoos. orange moo nag ñëw nañ fi war a tëj bi mooy tëj bi. ah non lii moom du yoon bi waaye moom moom fii moom kaay rek. dañ tëj bi xam nga faw mu tëj. léegi léegi booy tëj. <laughs> <laughs> dama toog nga war ma woon lay. fi date anniversaire ba nga anniversaire léegi yàggul. léegi alburaax mënoo fee créé impossible. tëj bi dama bëgg Babacar nga fental ma benn image wala benn vidéo nga tegal ma ko dama bëgg alburaax buy tëj mu commenté waale ko wala nga wax ma ci commentaire yi nga yàgg a def ci ànd ak moo xam leader ak lu mu mënti doon. bu la ci gën a marqué nga may ñu ko ñu tëjaale ko. waaw euh, bi ma ci gën a marqué nag moom mooy jour bi nga xam ne. Hmm. Euh, ci la président Pasti Pastef Ousmane Sonko. waaw ak euh, le président bi toog. Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye di génn Cap Manuel. Mm-hmm. c'était un jour inoubliable. jeudi la tombé lan digg penc c'était mm-hmm. de faire digg penc. Mm. mu tombeel weeru koor. ñu dem Cap Manuel jëli président Ousmane Sonko indi ko te Kër Góor gi vu que nous sommes sans limite. ñun xamoon nañu itinéraire bi xamoon nañu fi muy jaar xam nañ fi muy dem. fàttali ñu loo wax ci guddi googu biñ ko gisee ñu ànd ñoom. voilà dañoo gis El Malick njaay mu dugg ñu gis ki nga xam ne moom mooy Jibi Guèye Ndiaye. waaw mu yor benn mbuus ñu topp. xam ne du yàgg léegi le président Ousmane Sonko génn ci kaso bi on se préparait. ah kon kaso mbuus moo fay dugg mbuus mbuus. mbuus waaw merci Egalil. moo fay dugg ak saak ñu xam ne léegi mu génn ñëpp ngi def direct il y a une façon de faire direct yoo xam ne ni ala kulli alim dañ lay seetaan te def nañ direct même ci page u président Ousmane Sonko dañoo reprendre suñu direct ndax lan on était les meilleurs. macha allah booba loo fa wax doo ñëwaat ci loo wax li ma waxoon mooy. Mm. Mm. il exactement vingt une heures. Mm. on attend le président Ousmane Sonko. du yàgg léegi mu génn fii nga xam ne moom mooy Cap Manuel ànd ak le président son excellence le président Bassirou Diomaye Ndiakhar Faye. tëf deux minutes après. Hmm? ñu gis oto bi nga xam ne moom mooy am kii bi mooy genre kii bi oto ah, seen oto américain yi waaw ñëw taxaw ci pot bi nga ne ko lan mhm. ñu xam ne président léegi mu génn mhm. nga wax oto bi la pick-up bi la pick bi la lu tax ñu taamu oto boobu noonu mhm. mooy président bu génnee faw mu taxaw jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi bàyyeeko woon fépp pour ñëw fekkee si mbir mi nekkoon na jour boo xam ne ni dafa mel ni daf ñuy fàttali Coupe d'Afrique. Mhm. Mhm. Sénégal gagné Coupe d'Afrique. Mhm. nit ñi di saafonte di waxtaan di am na ñoo xam ñu ngi doon sax akolaantante. te xamante am ñoo xam ni dama lu ma ci gën a marqué mooy fam ko xam ne dafa téléphone dafa réer. ki for téléphone bi di wër waa ji. <laughs> ndeysaan lu ba mu ñëwee ci man la ko jox. noonu mbégte la yaa ngi sans limite leer na ma di nga jox waa ji téléphone bi lu tax mu taamu ma man.